ministre moo ko boole euh, moo ko booleeg sëriñ di kenn ci premier ministre lii la ma waxoon ma bu njëkk seen luñ la ko wax nga fekke ko euh, Amadou it ne woon na bu ñu yegg seen ñu woo la waaw mi ngi sëpp di gërëm ne kenn ñàkkul moom moo ñàkk ne ci diggante bi ko ñàkkee métti na ci moom ne diggante bi nga ko ñàkkee dinaa ko yëg waaye xam naa ne fu mu jëm tey la ma gën a mën a dimbali allah ji da ngay sëriñ Mokhtar Diène a ngi nii di doom ci sëñ bi di conseil ci président de la sëriñ bi di xamle ni digganteem ak Amadou Ba lu yàgg la lu sax la mu ngi tàmbale ci Baye Cheikh Aaj mii di sa tub maam Saliou Aaj maamam bokkoon ci ñi tërbiyee Cheikh sa Xabaan ba mu gërëm ko ba yóbbu ko ci sëñ Touba Baye Cheikh aj mi moo indi Amadou Ba teg ko ci loxoom sëriñ bi sëriñ bi téye ko doom moom ki la indi bu la fonkee kooka dalay fonk bu la nit indee ci moom te fonkul kooka day gàttañ la ci yow mu téye ko jàppe ko doom te moom ni muy téye nit day dem ba jeex takk dina la woo suba dina la woo ngoon sëñ Muxtaar mi xam na ci dara day nimmi ko nitam di topp nitam kon El ab lay Mbaye pex gëm nañ ni bis bi ñoo yéen ñoo ko bokk jëf ji nga indi excellent ci loxob sëriñ bi ak rakkab yi baax yi ñu ngi la ciy gërëm di xamal premier ministre ni ko na xelam dal ndax kóllëre gi mu jàppante woon ak sëriñ bi ñi mu ko jàppanteel ñi ko ci war a jàppale mu ñi ñu ngi nii te des na jàpp sëriñ Abdou Latif du nit ku woyof nit ku diis la ci wàllu yàlla ndax moom boo dee président de la république wala premier ministre boo ñëwee ci moom li muy njëkk a tàmbalee mooy wax la dëgg ak loolay jariñ tey ak ëllëg noonu la ko yàlla bindee man sax daanaa ci jéem a kii ndax bu gisee kilifa gu mel noonu bu gisee njuumte ci yow ci biir jataay bi moom fi la tàmbali wax lim gëm moom fi saase bu ci am lu muy bàyyi kon nag nee ko ñu ngi koy ñaanal yaakaar jim yaakaaroon ci sëñ bi yàlla mooy buur mooy dogal suñ borom mooy amal fu sëñ bi féete woon yàlla ko fa yàlla féete ak sëñ Tuubaa ak di la gërëm yow mit ndax ndaw lu mat ndaw nga ànd nañu wayaa sa Gabon maag yow sëñ ba sa Khadir xam naa sa xam naa sa jikko ak sa melokaan dara du tage ci yow ci wax ju baax ci lu ñuy jottali nit ci jëf ju baax tayit foo nekk rek islaamu saatal bay ni mooy sa mbir boo xamee lu ñaaw doo ko doo ko wax boo xamee lu rafet wax ko loolu ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm nee ko daal sëriñ bi tey la gën a am sëriñ bi ndax ñii sëriñ bi ñu ngi nii toog ak gëm naa ni sëriñ bi doom la ko def moom it mu def ko bàyyi mës mës seen diggante mës am kumpa sëriñ Moxtaar Jenn mi xam na ci dara ndax man su may su may sant damay matale rek damay damay matale sama yoon nekku ci nu ko nit jàpp rek baax na man su ma waxee leen wax rek pare naa ci sëriñ bi diggante ma président daa yàgg ñu bokk benn région muy Fatick mu jàppee sëñ bi bàyyi jàppe ko sëriñ jàppe ko xarit jamono yañ te passeport ba mën te génn réew mi sëñ Abdou rek la yaakaar jóg ñëw ci moom wax ko ko yedd ak moom bi mu départ laata muy egsi Gossas dañ ko woon ni ko ñëw jël si passeport sëñ Matar Diène mi moo ko yóbbu woon sëñ Abdou Latif soxla soxla du ko romb jàll bépp soxla bi ba si moom tam àndoon lu yàlla dogal ci moom lay fajoo loola seede naa ko sëriñ Sidi mi seede ko moom bu jàppee nit du ko mas a bay waaw sëñ Matar jenn mi nag sëriñ Cheikh mii ak rakam yi dañ coo yóbbante ak cant ci moom andi na fi juróomi nag yoo xam ne kiimaan la ak gëléem ndox mi kenn xamul nu mu toll dafa maa wax fii ci ginnaaw ni ma sama bañoon a tooñ kenn wala bañ a lor kenn ak diitoone ak téeméeri bëri koy ceeb ak juróomi nag ak gëléem ak ndox mu kenn xamul nu mu toll ay junni sose daat may wax ni ma su ma fekkoon ñaanu sëñ Abdou Latif soo bañoon na tooñ teelu bi daal naa mbuusum ndox bu ko nit jënd waaye barkeelu gi ci nit ñi barkeelu laa leen bëggul a xañ sëñ bi doom la ko jàppe woon xawral ba mu am mu dara ko jàpp de ba mu nekkee Abidjan na ci néebu xat fajaa noonu lay ñëwee ci moom Abidjan ba mu fa nekkee noonu la ko toppe ànd ak moom wataam ba dem fa mu loose moom njaboot sëñ Mor Dieng daa am fu mu leen teg ci xolam bëgg sëñ moor lool sëñ mataar bii nettal dama ni ba bàyyam jagadee mu nekk Dakar ñu entré ko fa ba sëñ Abdou Latif ak seeba seet ko da ko ni sëñ Abdou diw mëne ko génne saal bi ndax jooy yi muy jooyoon nit ñi bu ñu yeexee dana jeexal nit ñi nañ ko génne saal bi sëñ Mor kenn kenn la tewu ko ci njëriñ ñëpp ko xam amul kenn ku ko ëmpule wilaayam ak baatinam ñëpp ko xam sëñ Matar mii nag bàyyileel sax sëñ bi def na ko yaa ngi dégg El Hadj Abdou Mbaye sëñ bi bàyyileel na ko. te sëñ bi du moroomam ndax bàyyi la ci moom kon nag bu demee fi mu toll ci aas bu demee ba di ko bàyyileel doom ni ko maye ko mu dem maye ko ci jumaayam ñu ñëpp ñu teew ma jël fa parole jot li sëñ bi ay kàddoom ba ma ñëwee ci suba sa sëñ bi li ma wax demoon nga ca takk ga man ko waaw mu ne mbaa wax jot li nga wax samay kàddu yu baax man ko wax naa fa lu baax natt ak mun ma lii tax ma la yónni wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu léegi nag sëñ Cheikh noo ngi la noo noo ngi sëñ Abdou Latif wuutu na Cheikh Issa tey moom liggéey na liggéey boobu it ba dinay tukki bis bu la neex tukkil benn bis ñaawul ci yow bis bu ne Cheikh Abdou wu liggéey na ci lool bis baa ngay wër ak njabootam ba bëgg koo fay sëriñ Touba bi muy dox ci kër gu mag ci njaareem xerub sàkket bu mu romb ngan ko bul fàtte Issa waa këram lii tax noo nga lay ñaan nan nga ko fan la ko sëñ Fallou daaloon jot na ca yaa fi ne noo ngi ci sa ginnaaw di la déglu man bi ma yàlla bind sëñ Tuubaa tax man sëñ Tuubaa yàlla bind ma lépp lu ma am sëriñ bee gàmm gàmm gu mu nekk fa ma koy fekk ca néegu biiram ca ndànd day jóg di ju te jóg man wax ma lam may wax ni ma boo génnee waxal lii waxal lii moytul lii moytul lii loolee fe feddil naa sama wala rek yow ci moom waaw. Abdoulaye Mbaye fii doom nga fi lépp nga fi naa xam ni kër gi amoo fi benn frontière waaw waaw.